compte TikTok boobu également di tàggee nit yi di joxe ay fausses informations jot na autorité yi euh, def ci dara mhm. euh, Khady euh, xam nga li nga li ñuy wax si rapport bi dama jàpp ne procureur bi mi ngi si liggéeyam mhm. lii la ko askanu Sénégal di xaare mooy li nga xamante ne mooy li may man tuddee chaque jour le scandale de l'année mhm. mooy mënoo toog dégg fii ñu naan am na ñoo xamante ne dañ leen épinglé si ay rapport boo xamante ne dañoo wax ne dañoo luubal suñu alalu réew mu nekk loo xamante ne pour man dañ ci war a jug def si li nga xamante ne mooy ab gëstu. def si une information judiciaire comme ni ko waxee mais aussi jéem a xool ku def li nga xamante ne mooy malversation ñu teg la ay daan. parce que nag askanu Sénégal li leen gën a mooy lii. mooy gis nga li nga xamante ne mooy baliverne politique yi ñu bëree bëri intéressé wu leen. mooy lii ñu nekkee nii xiiroo ŋaayoo si wàllum politique. askanu Sénégal ñu bëri intéressé wu leen la ñu war a waxtaanee askan bi la war a toog pencoo ko diisoo ko mooy tey jii nii nan la ñuy def ba euh, suñu koom-koom gën a gën a gën a ñoŋ nañ leen def ba réew mi jàng bi gën a baax nañ def ba li nga xamante ne mooy euh, tey askan bi gën a sant seen bopp si réew mi nañ mën a def ba jikko yi gën koo defar nañ war a def ba xamante ne li nga xamante mooy suñuy ressource naturelle ñu mën koo fexe ba kenn du ko saax saaxe ñu teg ko fa nga xamante dafa lañ ko war a waaye li nga xamante aussi mooy alalu askan wi ñu fexe ba sàmm ko ba dara kenn du ko luubal loolu mooy li nga xamante moom la ñu war waxtaanee ku waxul li rek yaa ngi wax leneen loo xamante intérêt sénégalais et d'ailleurs loolu pour mu am dañoo fal li nga xamante ne mooy benn gouvernement ne ko nag li nga xamante ne mooy ñuy euh, alal suñuy koom-koom fexeel ba yow loxo bi na nga si teg loxo bu set waaye aussi bu ko kenn luubal loolu nag fekk nag ki nga xamante ne mooy euh, Cour des comptes def si rapport rapport boobu nag bu ñu génnee Sénégalais yu bëri comme man ku mel ne man man saa ma dégg yi ñuy waxtaanee loolu damay am lu ma metti parce que dama am lu ma bett dama li may sànnangas ko moi dama ne Macky Sall ba mu toogee daf ñëw jaay leen man lépp man Macky Sall laa koy euh, fe teg si ndoddom parce que moom mu nu jaay li nga xamante mooy bon gouvernance bonne gouvernance boo ñu ko jaayee mm-hmm. mooy lépp dafay set dafay leer da nga xamante mooy du am benn li nga xam mooy lënt-lënt tey bu ñu demee bay épinglé pour man on a trahi notre confiance mm-hmm. pour man lii bu leerul amut leen lu ñu mën a wax lu ñu mën a jàpp ne moom mooy taxaw parce que ba ñu jaaye bonne gouvernance dafa woon fekk ne lépp dañ ko teg si yoon éthique ak déontologie li nga xamante ne mooy kenn du wax ne wax luubal mi ngi fi mais nag comme li Seydi Gassama waxee sànq dama ko dégg mu ne bëgg na lii ni muy enquête bi nañ si dem ba jeex parce que nag xelu Sénégalais yi dañoo yàgg a tey si ay rapport yu fi xew ma ne fii lañ toog waxtaanee rapport wàllum li nga xamante ne mooy plan décennal des inondations amoon rapport boo xamante ne wax nañ si ne inondation yi ñu ngi gën a fees si dëkk dëkkaan yi inondation ñu ngi gën a fees si gox goxaan te pourtant ñu si def ay milliards laa la wax mais tey France daal di xiddeem ba léegi nii kenn waxul ku ku luubal kenn waxul euh, li nga xamante mooy milliards yooyu ñu génnoo si wàllum inondation mënd bi te léegi ñu jëm si nawet ba léegi waxuñu fan moo xamante ne moom la milliare yooyu dugg ba nga xam ne foofu amatul li nga mooy mënd te si gox goxaan euh, Sénégal Dakar bu Njaay am na ba léegi mën te tey la wàllu gën a aay loolu nag ba léegi rapport boobu ma ngi toog nekk sax si poussière bi kenn waxu si buñ fi jógee am na li nga xamante mooy ay rapport yi fi toogoon ay dossiers yi fi toogoon an où sont les passeports yi noonu wax tey jii nii ba léegi fexe nañ ba kenn xamul ku def ak deful te dafa am ñu toog ñu wax ku si mu ne lii boo ko remonté di ngeen jàpp ba nag seen xel commencé lënt xam ne nag lii nii saa su ne dinañ ko yëkkati mais fi muy mujj du neex te loolu mooy métti xolu sénégalais am na la ñu waxoon ne dañ ko téewoon ñu mayoon ko bi euh, li nga xamante ne mooy li nga mooy LP liberté provisoire loxo si poste dañu jàpp li nga xamante mooy Bougazelli mhm. mais tey fan la mujjee LP yi boo li nga xamante mooy définitive mooy ba léegi mi ngi dox ay soxlaam après tey nga may wax waxi rapport mais na tey li nga xam mooy les faux passeports de nga xamante ne see jàpp loxo si poos fan la mujjee waaw léegi nag loolu moo tax sénégalais yi amatuñu li nga xamante ne mooy confiance ci ay rapport léegi sénégalais dañoo dem ba dañoo découragé te nag xadi li gën a métti mooy sincèrement bu ñu amul yërmande si askan bi li ma métti li ma métti mooy tey bu ñu xooloon tey sénégalais ñuy dundee la vie dure dama si gox goxaani am na dëkk yoo xam ne fii may waxee ne Thiès Tiwaawan ndox amatu fa fi may waxee yooyu nii boo demee si marché Thiaroye gaar boo demee si li nga xamante mooy euh, tata yi boo demee si li nga xamante mooy tëli bi Sénégal yi nit ñi dànkali suba teel Sénégal yi nit ñi rey seen bopp ngay xool seen kanam xam ne ñoo jeex ndax sonn dund gu metti yow amul yërmande si loolu yow ngay jël seen alal da koy dugal foo xamante ne yow dootoo comprendre sax kan ngay wóolu dama si njàngu euh, Sénégal dama université Cheikh Anta Dakar étudiants yi paquet tas lañ nekk dund bu métti amoo yow looy jëm génne pour jëm wax ne lii dañ ko génne pour ko décentraliser pour que Sénégal yëpp yëg seen bopp si li nga xamante mooy réew mi mais yéen ñuy wax ne yéen yéen ko dugal si seen i euh, gafa gafa am ko dugal te li gën a métti ba métti mooy xadi mënoo comprendre que dafa mu ne woon boo leen defoon nanga dëkk Covid 19 bi waaye dina gën a appauvrir ñeneen ñi dina am ñoom seen profité pour gën a enrichir li gën doy waar mooy bu ñu xoolatee gouvernement bi fi nekk du ma tudd seen nekk moo xam koo xamante ne si Macky Sall nga àndoon ba fi nekk ba léegi mais sa dund dafa changé radicalement dafa jóge si li nga xamante ne mooy de la pauvreté à un enrichissement incommensurable mm-hmm. tey ñu féex riche gën a changé fii dem ba sax ci ni langage des langages richissimes des langages un peu eh, li nga xamante mooy dem ba nekk si beneen top niveau sénégalais di gën a appauvrir sénégalais boo xamoon daaw xam ko ren yaa ngi amul yërmande si loolu ngeen ni wax ay wax yu am ku luubal te ñoom ñëpp kenn toogul as expliquer askan Sénégal ça fait mal au cœur parfois et xadi fi may mooy dañuy wax waxi procès li ma woon nekk procès public li ma woon nekk procès ouvert que sénégalais ku nekk xam am na dëkk yu koy def dama États-Unis dama li nga xamante mooy Irak dama si naar yi dañuy def li nga xam procès public woo ku nekk ne la foo jaar jaar jaar si sa ministre dama ne dama ne Eh, te pourtant boo jàppee te boo jàppee li nga xam ne mooy naari jàpp ne ma ne boo jàppee naari jàppale ay fete la fa may ma ma continuer s'il may ma xam naa fi dune am na ku la waxaat rek ne la coupé bam rek may ma ma rek dama am na ñoo il y des gens il y a des gens qui sont devenus plus riches dinaa àggale allah dinaa àggale il y des gens il ah, des gens. qui sont devenus plus riches. plus comme pas possible. alors que tey ñoom bu ñu toogee xam ñu gën a mhm. ah. na procès de Ousmane Sonko am na procès diw am waaye yéen seen procès moom moo nekk procès public parce que sénégalais. bu ñu demee ba mu mere état bi fi nekk parce que Sénégal dañoo gën a sonn dañoo dem ba léegi képp ku mer mhm. jàpp ni ñii ñoo la ko teg képp ku liggéeyutul ñii teg li nga xamante mooy tey kum kom dund bu baax ñii ñoo la ko teg te boo leen gisee ñu ngi jaay maanaa di jaay mhm. fulla di jaay li nga ne mooy euh, daraje di jaay li nga xam koom-koom alors que ñu ngi wax ne suñu alal ngeen lekk mhm. est-ce que xam nga ne liggéey bu normal liggéey bu normal salaire bu normal mënoo see jóge nekk milliardaire. c'est clair alors euh, Abdoulaye tey ba tey par rapport au communiqué du euh, procureur ba ban analyse nga ciy def déjà sachant que ñu ci mel ni collectif suñuy ay milliards du du rees ñoom bu ñu leen déggee nee nañu ils ne sont pas convaincus ndax rupture de confiance dafa am ci diggante sénégalais yi ak euh, ak la justice. waaw <laughs> ma ne ko leex yi gën naa potelé <laughs> euh, donc euh, c'est c'est juste pour dire que y a certains qui grossissent effectivement il y a d'autres qui maigrissent ah, et c'est du point de vue de l'approche métaphorique uh-huh. euh, jëm si li nga xam ne mooy daanaka am ñoo xam ne malheureusement te du bulet ñu koy wax saay bu ñu leen dénkee li nga xam ne dafa jëm si gafag ak réew mi te ñoom ak réew mi bokk ko wala wa ilaa réew mi moom ko da ngay gis nii dañ say defee amaana dafay jéggi dayoo si lii nga xam moo di wàllu luubal te itam euh, rapport dafa génn euh, te damay fàttali ni sax Ibrahima on insiste beaucoup si rapport Cour des comptes bi jëm si gestion fonds force Covid 19 waaye am na rapport bu ko jiitu. rapport boobu tam.